ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim awnaka yaa muayinu wa bika nastain wa nusalli wa nusallimu ala ashrafi alanbiyaai walmursalina sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman kathiran mubaraka laqin lisaani waxlulan minhu luqad wa jaalhu dhakiran wa shakiran abad bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki internet yi nga xam ne yéen a ànd ak ñun ci seen site bii di Rafah TV àndandoo ak Bichri TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam ne ci lañu nekk waaye xew-xew yu màgg yi nga xamante ni itam xew na ci loolu tax na seen sit yi di Rafah TV ànd ak euh, Bichri TV di leen indil ay spécial yu am solo fas yéene ànd ko ak yéen yéen ñi nga xam ne yéen safoo ak ñun di leen ndokkeel xam naa nag euh, di jéggalu nag ci tardement bi nga xam ne xew nañ koo tardé tuuti problème technique la woon euh, dañuy daal di jublu rek ci liggéey bi ni ñu ko annoncé woon boobu ba léegi ngeen koy xaar egsi nañ ci di waajal màggaluk Cheikh Mouhamed al Fadal mi nga xamante ni euh, ci weer wi ci la ganee woon jamono ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab di xew-xew boo xamante ni lislaam dootu ko fàtte mukk ndax xew-xew yi nga xamante ni xew na ci di xew-xew yoo xamante ni yu ràññeeku la dañuy wax ne bis gënul moroomu bisam lu dul la ca xewoon waaye weer itam naka noonu gënul moroomu bis moroomu weeram lu dul la ca xewoon place yitam gënul moroomu place lu dul la ca xewoon wala lañ ca xewaloon tax na nag euh, lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole Cheikh Ahmadal Fadal mi nga xamante ni kenn la ci njabootu Cheikhul Khadim di ku ñëpp bëggoon mu feeñ ci yow waaye yàlla dogal mu feeñ ci kër Cheikh ah Cheikh Ahmadul Khadim ñu di ko sagoo nag waaye nag di ko tiitaroo waaye nag di ko roy di déglu ay ndigalam tey moytu lépp luy ay tereem tax na ñu am mbégte mu rëy rey dalal borom xam-xam bu mag borom xam-xam boo xam ne ganiyun ani taarif la doy na sëkk rek ñu ne ku ñëpp xam la rawatina yoonu murit kenn umpaleetu ko ndax xam-xamam bu yaatu macha allah waaye xam-xamam bu wér. macha allah waaye itam ab yaram ak ay tegginam ak gëstoom goo xamante ni lépp daf koy teg ci xam-xam daf koy teg itam ci ay mabaadi yu wér te wóor loolu tax na ngeen safoo ko di wax ne rek ànd nañ ci waxtaan wi ak suñu bokk suñu naataango maam bu Fall nekk ci Rafah TV xam naa dañ koy daal di jox kàddu mu nuyoo su ko defee ñu jox suñu invité bi euh, moom itam mu nuyoo ñu tàmbali ci liggéey bi incha allahu taala. kon bisimilah soxna Mame Bousso Fall ñu déglu la nga nuyoo ak suñu bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci Bichri waaye ci Rafah TV itam. Euh, jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad ni nga ko waxee ansibilahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim euh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo siyaar leen sant leen gërëm leen ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaha mu yàgg fi loolu te weer di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp euh, di santaat Serigne Touba bi mu ñu fekke bi ñu yàlla mayaatee ñu fekkewaat weeru tedd wi weeru màgg wi muy weeru Cheikh Mouhamadou Fadel euh, tey nag ñu war a seq ak waxtaan koo xamante ni si jaratut kenn di ko présenté bu ñu nee taalibu Serigne Touba la di kuy liggéeyal Serigne Touba ku ñëpp ràññee ci yoonu Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy dem fu nekk di fa wane Serigne Touba muy Serigne Gana Messere Maxtaar ñu war a seq ak moom ci waxtaane jëmm ju màgg ñaareelu xalifa Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadou Fadel ci ay jikkoom ci ay meloom ay mayam lépp dinañ ci waxtaane donte ne ci guddi jël lenn ci jikkoy Cheikh Mouhamadul Fadel waxtaane ci may nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy teewlu jamono ji Rafah TV ay ca Cheikh Abdoulaat bala ñuy sori dañ lay waat kàddu gi door a jël si waat jërëjëf soxna maam Boussa Fall moom sëriñ Abdou Samad ñu ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal ci kàddu yi wax na ko dégg ngeen ko euh, gan gi euh, kenn dootu ko présenté ci réew mi muy sëriñ Gana Messere maxtar di ni ma ko waxee woon léegi di waxtaankat bu mag bu mag mag ci yoon wi di ko ràññeeku itam ñu bëree bëri nawloo ko ci taxawaayam bi nga xamante ni am na ko ci diggam ak Serigne Touba radiallahu anhu sopp ko lool bëgg ko lool jël léppam jébbal ko Serigne Touba ba loolu mu doon koo xamante ni ñëpp xamee nañ ko ko niñ ko waxee woon léegi rek muy waxtaanewaat kenn ci mag ñi kenn ci taalibe yi murid yu mag yi kenn ci njabootu Cheikhul Khadim kenn itam ci xalifaam yi waaye kenn itam ci ñi tuddee ay murid saadix te mu wane ci exemple bu rëy a rëy muy Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke mi nga xamante ni moom la ñuy waajalal màggal gii ñu jëgmal xam naa sëriñ Gana Messere Mokhtar dañ lay jox nga nuyoo waaye ci biir nuyoo bi rek ñu portale waale ci euh, kii nga xam ne moom la bëgg a waxtaanee muy Cheikh Mouhamadul faadal boo ñu ko doon portale kan nga ñuy wax ne mooy sëñ Fallou sëñ Gana Messere ginnaaw ba nga nuyoo suñu bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci Bichri TV waaye ak ci Rafa TV bisimilah.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 di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp loo xam ne yéene na ko ngir liggéeyal ko lislaam mu defe ko ni ko bëggee di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak mboolem kilifa diine yëpp di am mbégte ci jàkkaarloog yéen ci béréb yi di Rafah TV Bichri TV feggoo ak sunu naataango sunu bokk yi Cheikh Abdou Lahad Ndiaye ak soxna Fat Bintou euh, di leen nuyu bu baax di leen dalal ci béréb bi di nuyu Sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu Cheikh Mahmadul Fadal di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mbooleem njabootu Cheikh Mamadou Fadal gi yëpp di beral ab nuyoo sëriñ Ahmadul Badawi nga xam ne taxawaay bi ci li ci màggal gi ci communication bi ak jàllale gi ak mbooleem njabootu sëriñ Fàllu gi yëpp ak mboolem taali bi yëpp Cheikh Abdou Lahad ni nga ko waxee noo ngi ci weeru màgg muy weeru rajab bokk ci ashurul xorom ni nga ko waxee it li ci xew tax weer rëy waaye amaat leneen lu ci xewaat ñeel jullit ñi waaye ñeel taalibe yi te mooy feeñu jamono Cheikh Amadou Fadal euh, Sëriñ Fallou nag ni nga waxee léegi euh, waxle mooy kan xamle mooy kan manes na ko ku bëgg a waxtaane nit wala jëmm wala ku bëgg a waxtaane dara faaw nga Euh, xamle ca dara xamle ne fii la bokk doon ko ne lu ñëpp xam la waaye fàttali ndax fàttali dana jariñ sëñ Fallu doy na rek ñu ne doomi Serigne Touba la ndax Serigne Touba mooy koo xam ne turam dafa daj fatan fadluhu fi sharq wal xarbi shaa'irun loolu la ko almashar waxoon waaye yemutoon ci foofu rek wa fil am wal amlaak wa fil malayil aala la ca teg kon kooka ku ñu wax ne mooy sa wayjur doy na ci ngëneel waaye soxna Awa Busu nekk way juróomu jigéen te soxna Awa Busu sëriñ Busu bee ko meññ sëriñ Busu bi moo ko soxna jaaratullahi ma Mariama Busu noo bokk lépp kon day mel ni la waykat ba doon wax de ndayam di baayam baayamay nijaayam foofu mu feeñe mooy dafa feeñe ci diggante ab jant ak weer jant bi mooy Cheikhul Xadim weer bi mooy Soxna Awa Bousso waaye moom sëñ falu nag mooy géej Mbambulaan loolu defe naa boo demee ci waxi Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari yi andi na loolu yabulul xadimi la si yu doa bi na ma naala fadluka la unsa wala dakar sabaqta jiilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadail lam tasol biha fikar laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fa sirta baxran min al anwaari tasdaxiru kon dafa sosoo ci diggante jant ak weer jant bi di sëñ Tuuba xadim rasul weer wi di soxna Awa Bousso loolu la sëñ Moussa Ka wax allahu sul fadlul azim ku mu jox nga neel dee fi lay yéem faadilu mooy fadlul xamim turóom wa doy na xarnu bi mooy doomi shamsun wa xamar mbakkeeg mbusoo bi duñ ko jar moo namp yaari weeni ngor mooy bamba tey ci xarnu bi sëñ Fallu mooy koo xam ne ab shérif la nga xam ne shérif la ci umman wa abba am sharafa gu sax boo toppee silsilaam daf lay delloo ca fatimatu bintu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te lii saxal na ñoom ay shérif lañ defe naa sëñ bi am na ku ko mas a wax ci mag ñi sëñ Mawalé wi ju dagal nee na sëñ Maxtaar Bintaloo mas na ko wax ne ko sëñ bi de mas damay wax ak moom ba yàgg ñu tudd ñenn ci gàddinaar yi aalimoo li sëñ bi ne ko ñooñu suñuy bokk lañu kon day saxal rek wane loolu sëñ bi saxal ak shérifam lu wóor la ndax defe naa keroog bi ko góor góornóor bëggee nuyu ci ndar pour jox sëñ Tuubaa loxo. sëñ bi dafa téye loxoom ne ko misli mina shurafa la yusallimuna mislaka min alkilab ku mel ni man bokk ci shurafa yi du nuyu xaj bu mel ni yow kon loolu day day gën a dëgër loolu loolu it boo ko toppee ni nga koy xamee mooy euh, sëriñ Fallu dafa feeñe ci askan wu sell yu ma la wax léegi boo xoolee tey néegu soxna jaaratullahi mooy néegam ndax sëñ bu soobee tax boo demee ci sëñ biit noonu lay delloo si waat ci moom kon boo xooloon tey ci askanu sëñ bi boo ko doon topp ne sëriñ Touba ne sëñ Mor Anta Sali ba wëri noonu mooy boo ne Serigne Fallou ma soxna aw Bousso da ñëw sëñ buso bi dangay ngay dellu si waat kon lépp day nekk benn béréb muy koo xam ne soxna aw Bousso nag li tax ma wax la ne dafa nekk silsila muy dafa nekk ci ci sarafa soxna aw Bousso doomi sox am sëñ Ahmadou Bousso la muy doomi Ahmadou Matabar Ahmad ma tawara may doomi ahmad aliyu bun osman bun ibrahima bun ismaila bun zakariya ibnu ismaila suleymaan ibnu alxasan bun ibrahim bun abdullahi bun haruna bun muhammad bun abdulfatah bun muhammad bun ali bakri bun muhammad bun abi bakrin bun aliyin bun muhammad bun ali bun hasan bun Muhammad Abdul Khadir bun Moussa bun Yahya Zahidin bun Daouda bun Moussa Jawani bun Abdullahi al-Mahdi bun Sayyidina Hasan bun Sayyidatna Fatima bint rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy càllal ak Serigne Fadilou boo ko toppee tàmbalee ko ci soxna aw Bousso mi nga xam ne mooy way juróom day dem ba ca Fatimatu bint rasulullahi sallallahu alayhi wa kon foofu mooy ak càllalaam foofu la feeñ foofu la bokk ndayam di baayam baayam ni jàll woykat bi xam sërifun bun sërifun sërifun bun sërifun tuuma jubluwu la kon dafa set ci lépp nekk sërif bu sell moom sëriñ Fadilu kon setu rasulullahi la moom sëriñ Fallu waaye bi mu feeñee ci way jur yu sell yooyu suñ borom da ko tànnalaat mu feeñ ci dëkk bu sel feer ci weer bu feeñ ci bis bu sell dëkk bu sell bi mu feeñ mooy daaru salaam boo ko xoolee da ko fekk ci alquran daaru salaam it dëkk la boo xam ne sëriñ bi ko sancaloon boppam ci desasine di 1304 def fa ñaari at bàyyi dëkk boobu ñëw Touba sëñ Fallu ca la feeñee jamono muy daaru salaam boo demee ci doxaawul Kabir sëñ bi day wax ne li tax tuubaa ak daaru salaam gënal ma ci dëkk yi mooy tànn gi ma ko yàlla tànnal. nga xam ne ndigalul yàlla la am ci sanc Touba ak Darou Salaam waaye mu ne Darou Salaam ak Touba it li tax ñu gënal ma sellug yéene li ma ko sance te mooy jaamu yàlla daal na delluwul ci cosaan yu njëkk yi nag sancu ma ko woon ngir sàmm wala yaxantu wala nangam a nangam waaye li ma ko sancoon ngir jaamu yàlla da ca yar borom di nga rabbi biha min al wara maa laa yuad yaa xayra man rabba wa xayra man waad dëkk boobu di Darou Salaam it ba ca feeñee dafa feeñ ci bis yi gën muy sayyidul ayaam yowmul jumaa kon bis bi gën ci bisi ci la sëñ Fallou feeñ mu yowmal jumaa waaye feeñ ci weer wi nga xam ne moom dafa bokk ci rajab muy rajab bokk ci ashurul xorom bushraa lanaa qad ataanal juudu wal karam lama ataanal bushraa lanaa xorom nga xam ne kon ci al ashurul xorom ci la bokk muy rajab rajabul fard di weer woo xam ne ci la sunu boroom defoon kiimaan gu réy googu muy yéege rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir won ko nag lenn ci ay ayatam te benn yonente su ko am nga xam ne it si asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi barak na xawla mu nekk loo xam ne doyoon na effectivement waxtaanee ko kon juróom-ñaari juróom fukki fan ak juróom-ñaar ci weer woowu ci la sëñ Fallu feeñ feeñ bi bisub ajjuma feeñ dëkk bu tudd Daaru Salaam waaye ba mu feeñit am lu mu correspondant muy waxtu wi mu feeñ at moomu moo taseeg at mi sëñ bi sañ ci Tuuba loolu it am na ko ko doon way ca ama wasasin la feeñ fa Tuuba am na ñu naan daaru salaam la booba ca moom a at la mbër ma génn daaru di sañ ci Tuuba ñëppi waaru kon day mel ni it dajawaat na tey muy daje gi mooy moo tasanteeg sëñ bi di sañ ci dëkkam bi di tuubal maxrusa bokk na ci ngëneel yooyu bi mu feeñee it te ñu yëgal sëñ bi ne ko gan feeñ na dafa joxe ndigalul na woor nga xam ne sëñ Fallu moom dafa indaale koor kon buñ ko nampal te buñ ko jox toqantal ah ci bis bi nga xam ne bis bi gis nga ko ni mel moom dafa indaale nga xam ne bis bi woor li ci ne ci ngëneeli woor bis bi moom bi mu ñëwee rek feeñ jamono sëñ Tuubaa li mu joxe ndigal mooy gan googu di ganu soxna aw buso gi buñ ko nampal buñ ko jox toqantal nga xam ne kon moom dafa feeñ rek sóobu ci alxibaadat kon li tax mu feeñ rek tàmbali lool sëñ bi it tànnal ko aw tur muy kan tudde ko yonente bi alayhi salaatu salaam muhammadu waaye alfaadilu nag kinaaya la ci moom muy dàkkantala ba te loolu mel na ni sëñ bi waxoon na ci ne ca ñam joxoon ndigal ñu dem di ko taxawu ji waxoon na ne bu buñ ko tuddee bu ñu demee ba jamono sàngam bu ñu xoolee ci asamaan si lu gis aw dàkkantalam loolu nga xam ne ci lu wóor a wóor am na ci ñooñ waxtu yu ñu tudd Serigne Fadilu bi ñu tuddee Mouhamadul Alfadilu jooju wax nañu ne am na ñoo xam ne bu ñu xoolee ci asamaan si gis nañ ñu bind ci lu mel ni datti garab yoo xam ne Alfadilu Alfadilu la suñ borom defal kashfu ñëpp mën a jàkkaarloog lool kon daal day mel ni Serigne Fadilu liñ ci mën a indi ci tàmbali dara mooy lii ma ci tudd ak fi mu jaar. fi mu feeñe muy daaru salaam ci ñaari way juru sel yi nga xam ne muy jantu jamono di cheikhul xadim waaye soxna aw buso mu baax mi nga xam ne moom it taxawaay bi mu am ak melokaan bi mu nekkoon ndax soxna aw buso moomu di way juróom dafa am taxawaay bu rëy ci kër Serigne Touba ndax taxawaay bu rëy soxna aw buso mooy dafa waxoon sëriñ bi na ko dama bëgg lu fi góor di am ma am ko fi maanaam cër bu fi góor di am ma am ko fi moom soxna aw buso waaye liggéey ba am cër boobu liggéey ba am cër bu fi jigéen di am mu am ko ba noppi sàkkoo liggéey am cër bu fi góor di am mu am ko ba am cërub góor am cërub jigéen ba sëñ Tuubaa waxoon ne yowmal xiyaama lu ma mën ci góor soxna Awa Bousso dana ko mën ci jigéen kon taxawaay la waaye loolu lu tax mooy li mu làmboo gis nga bi mu bi bi mu ñëwee Tuubaa soxna Awa dafa waxoon ne moom de ndigal li mu fas yéene saxoo mooy ginnaaw sëñ Tuubaa alxuraan moo nekkoon ab toolam ñiy jàng alxuraan ci ci ci daaree kaamil Sëriñ Tuubaa ji aljumaa ju jot ak altine ju jot maa leen war lu toggal leen ab laax waaye laax boobu nag ma di togg ba fekk ma koy fekki lu ma ko bàyyi bu ko nangoon a sax ba mu ko tàmbalee ba bis bi mu fi bàyyi ko togg na laax boobu waaye dane woon lan moo ci yéeneem mooy fasaale ci képp ku sukk jëbblu mu nekk sa njëggal nekk sa njot nga xam loolu la doon def taxawaay boobu mu amoon it xam ngeen ne soxna Awa sëñ bi nit daana tawat sëñ bi ñaanal ko waaye nit daana sëñ bi daana yabal nit ci soxna Awa Bousso ngir ni meloon waaye xoolal beneen taxawaay keroog bi soxna Fati keroog bi soxna Aminata Lo génne àdduna way juru uh, Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Lamine Baara ngir demal Serigne Touba ngir xam ne booba sëñ bi moo sakku ku ko demal soxna Aminata Lo dem waaye position ban la soxna Awa Bousso taxawee mooy soxna Awa dafa boole taxawu di nampal Cheikh Mouhamadul Lamine Baara waaye di nampal soxna Mariama Kunta nga xam ne ñaar ñëpp la la la la boole woon taxawu ginnaaw soxna Aminata Lo nga xam ne taxawaay boobu mu taxawoon rek wane woon na aw melokaan ci wuuf njaboot gi kon nday ju baax ju am melokaan bu dee kenn nag di daam fa kullu matxin baliirin xiila fii rajulin fa anta saahibuhu yaa ayyuha rajul doy na sëkk ci sëñ Tuubaa bu ne sëñ Tuubaa rek melokaan woowu la kon daal loolu mën mënees na ko indi ci euh, xam ne tuuti ci sëñ Fall jërëjëf euh, sëriñ Gana Mesara ci leeral yooyu nga xam ne leeral nga ko ci ak bokk ak càllala gi nga xamante ni Cheikh Mamadou Fadal am na ko waaye dugg nga itam bu baax a baax ci identifier kan mooy Cheikh Mamadou Fadal ci ay waajuram waaye itam ci li ñuy wax lieu de naissance waaye itam ak circonstance bi nga xamante ni moom la tombeek muy euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab tolloog xew-xew bu mag a mag ci lislaam waaye tam manes naa wax ne Cheikh Amadou Fadal ak sàncub Touba euh, maase nañu euh, di événement yoo xamante ni benn bu ci nekk rek euh, yóbbu na ab dayo bu mag a mag Cheikh dal Fadal mu mel ni kii tam loolu ay ngëneel la yu bari yoo xam ne Cheikh Amadou Fadal bu yemoon ci benn rek daanaka mu doy sëkk waaye mu làmb loolu lépp boole ko te wut nag mu am wàccaay yoo xamante ni waajale nañ ko ko xam naa balaa ñu ñëw ci wàccaay rek dañuy jox soxna maam Boussa Fall moom itam mu ñëw ci laaj bi nga xam ne moom moo ci topp jëmale ko ci sëñ Gana bisimilah soxna Mame Bousso ah, jaajëfal nañ la bu baax sëñ Abdoulahat ci laaj yu am solo yooyu Serigne ginnaaw bi nga xam ne génn nañ ci portale Serigne Fallou maanaam ak càllaleem eh, ci leeral yu am solo yooyu eh, bi ko sunu borom tànnalee ay waajuri sell moom Cheikh Mouhamadul Fadel fan la jot a jaar ci am njàngam ak ak tarbiyaam. Eh, jërëjëf soxna Mame Bousso waaw ah, sëñ Fadilou Serigne bee ko dalal jàng. moo mook Cheikh Mamadul Moustapha sëñ bee leen dalale fii ci Daaru Rahman fi ñuy Daaru Naar ñu ko sëriñ Chouaïb fii leen sëñ Tuubaa dalale jàng muy Cheikh Mamadul Fadl ak Cheikh Mamadul Moustapha sëñ bee leen dalal jëkk muy dem ci géej gi bi mu leen dalalee ba noppi nag sëñ Fallu comme moom la ñuy waxtaane sëñ Daam Abdourahman Lo moo ko jàngal alquran sëñ Daam a jàngal Cheikh Modou Fadal lu mu wax mu mokkal noonu ko Cheikh di waxee waaye mu jàng xam-xam ci maam Cerno Birahim borom Daarul Muxti jàng na fa dañuy wax ilmu tafsir it jàng na ko ci maam borom Saam maam Mor Jaara jànge na it ci Sëriñ Mbàkke Buso radiyallahu taala anhu loolu yi defe naa bu ñu demee ci Nushatu Nadim danañu fekk Abdullah euh, Abdourahman al Alawi defe naa andi na loolu ci sëñ Fallu jaar ci mbirum jàggam gaaw a dégg maanaam li muy jàng nga xam ne ba ñu ko jàngalee leçon tey sax ci dégg gi mu dégg leçon tey bi comprendre gi mu ko comprendre foofu mu bi mu am ci lay xamee leçon bi war a ñëw suba moom sëñ Fall nga xam ne tey bindub tayam moo koy jàngal bindub ëllëgam ngir teel mën a dégg loolu defe naa euh, alaala yu wax na ko dafa wax ne razaqul ila fahman wa daka axaddu min sayfin waadaw min daka bi fahmihi yaqulu man yadri law iktafa kafaahu an maqri yaqaalu man yaqriyu annahu qad dara qabla alqiraati allati kaana xara qad axasa alquran fi lthamaani an ilimami abidurrahmani wa bada alchagali bilulumi faxtaata bilmantuqi walmafhum xasal ilma abi ammihi lfahima bahrul ulum cheikh ibrahima loolu Abdourahman al Alawi moo ko wax ca na nari kon day mel nee na yàlla moo ko teeloon a dénk ak eh, ak ñaw koo xam ne moo gën a ñaw sax ñaw kël jees yi ci teel a comprendre lépp luñ ko jàngal moom sëñ Fall xam dana doy ci boo ko jàngalee bindu tayam bindu tayam dana tax mu mën a dégg bopp ëllëgam waaye xet axatal quran fi samani an li imami abdurahmaan nga xam ne juróom-ñetti atam jàpp juróom-ñaari atam ci la jël alquran ci sëñ daam abdurahmaan loo ginnaaw ba mu yitte woo xam-xam nag mboolem xam-xam yépp daf cee teel a géeju waaye jaar ca jëlit géeju ca géeju xam-xam googee di maam Thierno Birahim moo tax daana wax ne sunu baay Thierno daf noo jàngal ba ne ar mu yarnu ba ñu ner kon wan nañu fi mu jaar ci am njàng suñ maam Mor Jaara borom saam moom it jàngal ko ilmu tafsir nga xam daana wax ne ku dul ki wàcce alquran ak ci kim ko wàcce ak ki ma ko jàngal maa la ko gën a dégg alquranul karim ngir dégg koo xam ne sëñ Fallu déggoon na ko alquranul karim xam ko bu baax a baax kon sëñ foofu la jaar sëñ sëñ bee ko jàngal ak ñii ma la tudd waaye euh, yemu ca sëñ bi tërbiye gi li ci jiitu mooy maam Thierno ndax dégg nga wax suñu bàyyi Thierno dañoo jàngal ban ne ar mu yarnu ban ne nër ginnaaw bi fi bi bi ñu tollee ci ñu war leen a tërbiye ñu war koo tërbiye sëñ baa ngi ci géej gi jamono boobu sëñ baa ngi ci géej gi kon maam Thierno la la la sëñ bi ba batale woon njaboot gi borom daaru taxawe ko bi sëñ bi ñëwee it ba sëñ bi jógee ci géej gi ba dem gànnaar sëñ Fallu dafa dafa dafa demaat gànnaar sëñ bi tërbiyaalaat ko boppam ca gànnaar nga xam ne bokk na ca ñi nga xam ne daana tëdd ci fu wow yool yi ak god yi ak fel yi yiy matte di leen matt ñuy tërbiyee di taxawaay bi sëñ bi tërbiyaa na ko gànnaar tërbiyee gu metti nga xam ne daanañ xëy suba ba ngoon nga bu pet la ñuy am wala kolkooru cere gànnaar nekkoon béréb bu tal ñuy dëng-dëng yi guddeeg bëccëg di dang-dangi amuñu béréb bu tëddukaay gànnaar googu ñeenti ati gànnaar yooyu yëpp sëñ bi la taxool sëñ bi di ko tërbiyee ba noppi muy muy mu mu mu jël nag xam-xam ya waaye yëmut ca gànnaar bi sëñ bi ñëwee ceyeen it dafa continué ak tërbiyam nga xam ne foofee ca ceyeen sëñ bi da leen doon tërbiyee nga xam ne bokk na si ñu ko daan bindal jege ko moom sëñ sëñ Cheikh Amadou Fadal nga xam ne état bi gën a jafe gën a metti ci ak tërbiyee bokk na ci muy muy muy gànnaar ak ceyeen te gànnaar ak Thiel bu ci nekk. Mhm. sëñ Fall tërbiyaa na ko sëriñ Tuubaa tërbiyaa kon nag moom melokaan woowu foofu li koy gën a saxal mooy bi mu nekkee Thiel eh, eh, foofu la sëñ bi joxe woon ndigalul la. Mhm. kon soobu ci yoon wii mu nekk. Mhm. yoon wi mu nekk. xanaa fa la wooyee woon Cheikh Massamba. Euh, wooyee fa maam Thierno euh, wooyee fa. Euh, sëñ Fadilou sëñ Mor Roqaye Bousso. ak Cheikh Mamadou Moustapha xamal leen ne duma way juru kenn bàyyi kenn du ma màgg kenn mhm, du ma nijaay kenn mhm. li fi man day jaay te li koy jënd mooy ak taalibi kon mooy joxe sa bopp suubu waat yoonu tërbiya boobu mhm. xam nga loolu sëñ loolu waykat bi na xa aw yoonu lam di muridun saadiqu sey ci Serigne Touba ba mel ni sukkër su tab bi am ndox naan ba mel ni am dër moom kon bi mu bi mu sooboo dafa daal di jël nag yoonu tërbiya jël yoonu Cheikh Ibrahima Fall foofu itam daa mel ne sëñ Gana la foofu la futteekoo nag xam ne li fee Sëriñ Tuubaa da ngay jaayante ngir nga mën cee jot mm-hmm. mu waxoon sax waxam ju siiw joojee mm-hmm. biatu bu nuwatiya bil irada mm-hmm. lakum li kay ahsa bi xalqil aada mel ni foofu la tàmbalee ku teel a xam Sëriñ Tuubaa la teel a xam ne ku ñuy liggéeyal la teel a xam ne tam ku ñuy xidmaal la ku ñuy bëgg la waaye tam ku ñuy àddi yàlla ba tax na diggam ak Sëriñ Tuubaa ci liggéeyal ko mhm. waaye ci bëgg ko mhm. waaye itam ci xidmaal ko mhm. loolu xam naa euh, bëgg nañ ko duggaatal ñu foofu tam bu baax a baax ci nekk gi mu nekk muridin saadix waaw loolu suñ Fallu xam nga bi sëñ bi waxee loolu ak yim am ci sëñ bi yëpp ak ni mu ko jegee ci bokk dafa jaay lépp moo tax sëñ bi mas naa ko ñu wax sëñ Saxin Mbacke sëñ bi ne ko Mouhamadou la ah. mu ne ah kay jaaxal na ma koy mu ne ko bala ngaa yéemu da ngay xam li mu mu laaj ko lu mu de mu ne ko daa amul lu may lenn jaay mooy ak njuréel la jaay ko jënd ko ak loolu da ko def jaay ko nga xam ne bi sëñ bi waxee loolu dafa jaay ak njuréelam yaa ayu seex yaa ayu seexu nafisil murtaja yaa fatihat ma kaana xablu murtaja biaxtu bu nu watiye bil irada lakum li kay orda bi xar xaada waa baax dama salituwa min ni fa ni aslituwa lakum bi xëy li man ni xam loolu rek doyoon na bu gànjarew bi yow ku foor ki mi nga ne yaa yow mi nga xam ne lépp lu tëju woon tijji nga ko bis ni ki tey daal jaay naa mbooleem loo xam ne ak njureel la woon gu dox sama diggante yow man Mouhamadou Fadal jënde ko nag ak taalibe bi nga ko jëndee ba mu ba mu leew ma domm nag ba nga xam ne maa ko moomal sama bopp nag ku jënd ba jar yaa ko moom waaye nag jël naa njureel googu yépp man jaay ko jënde ko ak taalibe kon léegi amatul yitte ci njureel gi amatul yitte gi ci bokk gi léegi li mu am nag mooy jaay lim bokk ak lim bokk ak Serigne Touba lépp jënd ko taalibe bi xam ne liy jëriñ nit ki ci ci ci Serigne bi mooy joxe sa bopp mu def lool waaye ba mu ko defee defu ko ci wax ko rek waaye da koo def nag ci jëf nga xam ne lu ab taalibe lu ab taalibe di defal ab sëriñam ngir am ngërëm sëriñ Fàddilu defal na ko Serigne Touba lu ab taalibe di jëf rek ngir lamboo ngërëm sëñ Fàllu def na loolu ni ñu koy xamee mooy euh, dafa jaay léppam jënde ko am ngërëmul Serigne Touba di ko tagg ci ay guddeem di ko tagg ci ay bëccëgam waaye di ko jëfal nag nga xam ne léppam da koo jëme ci liggéeyal ko ci ay guddeem ak ci bëccëgam tey dañuy wax ne koo xam ne ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett bind na ko ci loxo boppam bindal ko Cheikhul Khadim defe naa tool booy bayal Sëñ Touba nag bu bu ci mel ni alxuraan amul bu ko bu ko gënal amul waxuma bu ko jege sax ndax bu suuri kitaabullah sëñ bi alxuraan mooy léppam alxuraan mooy euh, léppam quraanu xifzi wa kanzi abada bihi uzaxsihul ada ay subada alxuraan bu fekkoon na tey dañu naan sëñ bi dafa jëm ci ab dëkk jàpp ne silmaxaloog yu gisul njàccaar jib jox ab tuma mooy alxuraan maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil xaaidil basirin muayni kon bu fekkoon da ko bindal ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett rek amul ko mën a gën a dab sëñ Fallu ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax alxuraan la la bëggoon. wax ñu gisee. waaw ab yóbbalam loolu bu amoon mu doy sëkk. waaye da caa boole lu mu am jox ko sëriñ bi digganteem ndax bu ñu nee murit saari xam ñeenti ponk yi sëñ Tuubaa ne mooy tënk ak murit. làmbal bu la neex xool ko ci sëñ Fall sëñ Tuubaa moo ne sifatu sadiqil muridin bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw faxtiraar asidq fi mahabbati cheikhi abat suma mtisaali amri ay si warat wa ma xaw sal tarku tarkul ixtiraar bu tulaqan walaw bi batilin alayhi fi ma xaraw wa ma xaw sala bil ixtiyaar lu zannihi bila inkaar bi ci jëkk muy cofeel cofeel googu nga xam ne moo jëkk ci bu doon ay sart la kenn gi jëkk yanu euh, ak murit muy cofeel sëñ Fallu kenn jotu ko ci lu tax da dana jotu ko ci sëñ Tuubaa dafa wax ne man de bëgg gi ma bëgg yonent bi far na ci sama xol bëgg doom bëgg alal bëgg lépp nga xam ne fatte naa lu mën a doom bu doon ay naari góor ak wurus ak bi man bi xobbihi nasitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayala lu ci nekk waxee na ko noonu waaye sëñ Fallu it noonu sëñ bi def ci dimension boo ne boo lambee biir xolam doo ci fekk kenn ku muy rasulullah sallallahu alayhi sëñ Fallu it loolu la wax nee na biir xolam man xubbi lahu dahra nii an xubbi siwa ma it daal sama xol bi aw ma lu ma ci doyloo wala lu may bëgg lu may jàpp lu dul bëgg sëñ Tuubaa nga xam ne saf ko du ma ay dox bil xadim fardan araahu kon léegi amatul sago ci eh, bëgg googu mu bëgg sëñ Tuubaa ci melokaan woowu kon bi mu jaayante loolu yëru ca mu boole ca melokaanu murit koy mooy mooy imsaalu am ay si warat foo dégg ndigal jóg ba muy nekk gàn ba muy nekk gànnaar di metti lu sëñ bi ma sa joxañ ba ñu nekk cee lu sëñ ma sa joxañ bi sëñ bi ñëwee njaareem it sëñ Fallu njaareem ba sëñ bi jox leen ndigal ñu dellu siwaat kon imsal am ndigal muy sanc si ñu sanc ndindi sanc xusnal ma ab daarul xadim dëkk yooyu sëñ bi joxewoon woon ndigal ñu sanc ko sëñ Fallu moom it sanc ndindi ci ndigalul sëriñ Tuubaa waaye bu sancee ndindi ci ndigalu sëriñ bi dëkkalu daraam waxtu wu ne ay ndawam ak yónneem du dakk ci sëñ bi ngir lan di sakku lu ko sëñ bi sant ngir mu di ko ñëfal ndax xam na ne lim jaay da ko da ko teg ci condition dama bëgg xotti baax waaw waaye bii ñu ko jëndee ba noppi yi nag ba moom moom ko ba téye njëg gi maa ko moom joxaat naa la ko addee bi xëy li mel ni nag nekkuma di ci euh, regretté dara wala ma di ci récurel dama ci ànd ak fierté xol bu féex ci jaay gi ma jaay sama njureel gi nga ma jur jënde ko moo tax moo xam loolu Serigne Saxin Mbacke Serigne Touba waxoon ko loolu Serigne Fallou nag loolu bu mu amee kon mu taxaw ci di liggéeyal Serigne Touba bokk na ca ci melokaanu murit cofeelam googu lii xew tey jamono ñu naan kennal sëñ kenn ba ko sëñ Fallu di wax yaa raa iman mithla cheikh yi mahlan wala sa tara loolu ba des na ko jéggi ci kennal sëñ Tuubaa yow miy sàkku di wër ci àdduna ku mel ni sëñ man nga def ndànk parce que lu yàgg-yàgg fa la sa tara doo gis ku mel ni sëñ Tuubaa daal di wax koo xam ne doo ko gis mukk lu ak tey ngay gis ci moom muy jekk ak wegu sëñ Fallu xam ne waxatuma la kon kuy wax waxul ci way juróom léegi taalibe buy wax ci ab sëriñam la doon moom xool gi muy xool sëñ Touba nag sëñ Fallu taqamtikoowul sañ Touba way jur waaye day taqamtikoo sëñ Touba ab sëriñam tax mu naan moom de ku tëy la woon koo xam ne ku ko mas na jàkk da ko da da nga ko bëgg a gisaat ngir nim mel waaye ku wegala woon koo xam ne kenn mosu koo mën a ñaa nga xam ne ak wegoo ko waroon wen gu ne daan na kooku daal bu ma a ko doon misaal sax dëgg dëgg ngeen nga bëgg koo xam diine l'islam jii daal moo ko yeesalal ba mel ne sax moo ko fi indi woon fan kon xam nga loolu fi la aw tagg mën a yem boo xam tey bu newoon waxuñu doomi Sëñ Tuubaa ko waaye ñu ne kii eh, taalibe bi Sëñ Tuubaa ko wax waaye buñ demee ba ci biir ñu doon la doomi Sëñ Tuubaa la ba bëggee gën a yéemu ci Sëriñ Tuubaa dangay xam ne kon doy na sëkk ci yéemoo ci kii tagge wu ko ci bari wurus tagge wu ko ci rafet nangam waaye da ko tagg ci wegu ak diine islam loola ba mu amee it mu mu taxaw di liggéeyal sëñ bi bu nawet jotee bu ñu ne càpp ci tool yi mu ne càpp ci kaamil bi mbay mi noppee kaamil bi noppi mu boole mbay maag lépp jébal sëriñ bi nga xam ne boole léppam jox sëriñ bi nga xam ne amul dara lu muy lu muy xaar léppam da ko jeexal ci euh, sëriñ Touba bëgg googu mu bëgg sëriñ Touba ak taxaw googu mu ko taxaw kon ñaareel boobu mooy jëfe ndigal ba ca mooy bàyyi diingat sëñ Fallu wóolu gi mu wóolu woon sëriñ Touba ak doyloo gi ñeenti baat yi rek doyoon na sëñ Touba dañ naan ko nikk na ko nankutum na ko katiw na ko taraw liis defe naa lu waay di déng déng di ko sikki sàkk doo ko waxee noonu ndax li nga jàppe noonu mën naa bañ a rëcc ci genn wet moo wax moo ne woon sëñ Tuubaa da naan ko nikk na ko nankutum na ko na ko tarawlis nga xam ne moom amul amul foo xam ne ak rëcc mën na caab loolu mooy doyloo gi mu ko doyloo bokk na ca ci euh, bàyyee gi nga xam ne mësul am lenn lu muy sikk sàkk ci digganteem ak sëriñ bi mooy lu ko sëñ Tuubaa ma sa joxoñ nam ko ko joxoñe noonu la ko noonu la ko sëñ Fallu jëfe mës ta am sikki sakk moo tax sëñ jéeri baa daan suugu ku baax mas na ñëw njaareem sëñ Fallou ñëw nuyu si ko ak Cheikh Moustapha mu am lu mu wax Cheikh Mamadou Moustapha ginnaaw li ma la waxoon léegi dañuy waxtaane sëñ Fallou waaye mu ne sëñ Fallou wax jii ma lay bëgg wax nag yow Mouhamadou Fadal sa bàyyi sëñ Touba sa mucc ci maanaam génnu ci sëñ sëñ jéeri baa daan dane sëñ Fallou li ma lay bëgg wax sëñ Touba sa bàyyi sax mucc ci maanaam kenn génnu ci daan na ko ku ne war na laa liggéeyal yow Mouhamadou Fadal bu la mënta liggéeyal war naa wut ponkal mu lay liggéeyal yow nag fallu dara warul ci kenn loolu suñ jëree ko waxal suñ suñ suñ fallu ci njëriñ ku ne war na laa liggéeyal bu la mënta liggéeyal war naa wut ponkal mu lay liggéeyal yow nag fallu kenn dara warul ci kenn sëñ jéeri waa daan sugu ma waxoon loolu sëñ fallu nga xam ne wax ju doy waar la joo xam ne euh, melokaan wi ni mel faggu googu mu doon faggoo liggéeyal sëñ Tuubaa di ko waxtu waxtu ne gis nga bi sëñ bi joxee ndigalu jumaa ji dana ko Mouhamadul Fadal yow demal ne ca liggéey bi jumaa joojee ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca ba ndax na kon ca santaane bu njëkk ba ndigal gis nga ndigal ku dikk na la ca fekk ku demit na la ca ba mooy nekk ca rek mu sax mu sax ca loola nekk ca melokaan woo mës la nungoo booleeg Sëriñ Tuubaa dara jaay gi du ko doy ba dafa egg ci wax ne moom Sëriñ Fadilu bugguta doon doom ju doon bàyyam buggu la doon ab cheikh li muy doon moom nekkul moom mu ngi ci biir sëñ bi rek bokk na ci li ma gën a motivé ba tax jataay bii ma ma def ko ngir defal ko sëñ Fallou dama ko déglu jooy mu wax ne moom sëñ Fallou wax ne sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom nag lañ am ki koy jot li moo ma gën a jooyloo dana Mouhamadou sëñ sëñ Mouhamadou Fadil Mbacké nee loolu nag moo am fu ma yóbbu sëñ Tuubaa rek lañ am nga gis ne tey boo nekkoon ci dara kala ca labbali daf laa dimbale loolu tax mu nekk ci digganteem ak Serigne Touba di ko doxe waaye noonu mu mel nag ci digganteem ak Serigne Touba it loolu tax moo ko jural Serigne Touba gërëm ko ci yu dul jeex nga xam ne tey sëñ sëñ Fallou mboolem maraaxil yi nga xam ne mooy béréb bi tërbiya yi Sëñ Touba yëpp bu ci nekk rangoo na fa ngërëm tey bu ne mag la si ne ila Sarsara xat xasadu tuddal Sëñ Fallou boo ne woon ña ma fekkoon ci yéen tuddal Sëñ Fallou boo ne njëreem tuddal Sëñ Fallou ba ba noppi nag arrivage boobu am na ci ñu bari ñoo xam ne ba ba ñu jiitoo Sëñ Fallou dafee desaat di meneen Sëñ Fallou moo xam ne daa neyaat ci ron doomi Sëñ Touba di ko liggéeyal ba aman ngërëmam doon sëñ fallu mu am ngërëmul sëñ Tuuba doon sëñ fallu mu am ngërëmul doomi sëñ Tuuba waaye doon sëñ fallu mu am ngërëm yi bokki sëñ Tuuba am sëñ fallu mu am ngërëm yi magi sëñ Tuuba yi maanaam sëñ fallu dafa amul benn béréb bu mu dara amul maanaam sëñ fallu maanaam li yéeme mooy sëñ fallu daa doon sëñ fallu sëñ Tuuba di bàyyam moo xam ne bàyyi gi neex na waaye am na lu ne ci sëñ bi loolu ak yu du ko maye mu jaay duweetu mm-hmm. ko muy xool ku ne loo yor mu ci moo waral boo dikkee ci biir ëttam fekk fa Cheikh Ibrahima Fall fekk fa sëñ Modou Xabbal fekk fa sëñ Modou Mam fekk fa sëñ Ahmadou Saxi ku sëñ Tuubaa compal dara ku ne sa comp boobu léegi la sëñ Fallu mënta bàyyi faaw mu amaat ca borom am comp boppam loolu day wane ne xam naa euh, bëgg gi bëgg sëriñ Tuubaa tax na euh, mu mu bëgg lépp loo xamante ni taq na ci sëriñ bi comme ni ko sëñ Gana waxee léegi mm-hmm. ñu tàmbalee ko ci mm-hmm. waxtaane portale Chamadal Fadal mm-hmm. bokk yi nga xam ne yéen ñun ci seen site bii di Rafah TV ñu ànd ko ak euh, Bichri TV ngeen ñuy suivre en direct euh, di sant gan ñi nga xamante ni teew nañu fi léegi du ñàkk danañ am seen i tur. Mhm. waaye di leen sant yéen itam ci ànd bi xam naa ne ñi ngi ànd ak waxtaan wi soxna Mame Boussa Fall ca Rafa TV. Mhm. waxtaane nañ ci xam-xamu Cheikh Ahmadou Fadal ndax ku wax doomi Serigne Touba wax ne ku bëri xam-xam la loolu mën nañ caa doy seede dëgg rek wax ji nga xamante ni Serigne Maodo Touré waxoon na ko waxoon ne ataytu ila Touba fa alfaytu sayida yudaahi rasulallaahi bayna ashaabihi fa alfaytu bahrayni juudan wa xikmatan ya mujibi am waaji na daa wa xikma mhm. sëñ Maodo Touré nee na bi ma ñëwee Tuubaa dama fay fekk waajoo xamante ni sëriñ boo xam ne dafay mel ne rasulillahi mu toog ci diggante ay saxaabaam mhm. ma fekk nag mu doon ñaari géej géej yoo xamante ni genn gi géejug xikma la gi ci des itam géejug tab la mhm. xam naa du ñàkk danañ ñëw ci biir waxtaan wi xikmatu ma Ahmadou Fadal ndax moom almurabbi bil xikma la lu mos a wax rek daan na wax naan ala inni wa in kasurat fuduli fa lastu bi faailin illa al wax ji de li muy nuru nuru lu xorom lépp lépp laaj loo ci laal rek dëgg lay doon lu wér la alxuraan lay doon itam waaye xikma alu juudam ak tabeem itam kenn ku nekk xam na ne Sëñ Fallu ku tabe la woon loolu ci biir waxtaan bi bu ñu ko waxtu yu mayee danañ ci ñëw xam naa dañuy dem ci soxna Maam sa Fall mi ñu ànd ak moom ci euh, waxtaan wi moom itam du ñàkk am na tomb waxtaan mu bëgg suñ gànna ñëw ca kon soxna Maam Boussa ñu teewlu la nga indi euh, tomb bi ci topp Euh, macha allah Cheikh Abdoul Ahad ci waxtaan bu am solo si ngeen ñu ngi lay jaajëfal ci question bi ni nga ko débloqué euh, macha allah am na ci lu kawe suñ njorto ginnaaw portale bi ñu jóge ñëw ci am njàngam fi mu woo dañuy dugg rek ci xar baax baaxi Cheikh Mouhamadul Fadel ci diggam ak boromam ba tax ñu naan ko borom na am mu am borom do am do am euh, foofu lañu ñu bëgg a xuus ak yow Serigne Gana Messere. jërëjëf maam Bousso waaw ah, sëñ Fallou moom léppam xar baax la waaye li ci gën a yéeme mooy li jiitu ci karaamay nit ku baax mooy sàmm fi de sëñ Fallou dafa jëfandikoo mayu yàlla gi ko yàlla may xam nga yàlla dafa am ay kadoom di ko jox ay xejjam defe naa sunu borom dafa fonk dafa fonk waayam yonent bi ci hadisul xudsi lu lu suñu borom wax man aadani waliyan faqad azantuhu bil harb ku ma noonul wenn waliyu rek déclaré naa la guerre te gaa yi yàlla yooyu suñu borom dafa am lu mu leen di waajalal di leen ko jox waaye xoolal moom léppam day dellu ci suñu borom defe naa ko ci déggoo nga doon li xayrika laa nasku ilaahal wara amra kooku ko wax fan la tawxid fi la tawxid yam moom buñ ko dee jàmbat jaare ci moom def tawasul ci moom moom xam na ne benn borom moo am mooy yàlla mu dellu ci moom bu dee tuub ay xasaay la ci bind bu dee leneen noonu la ci mel lu tax nag mu doonoon boroomu cër dafa am ibnu ataa dafa wax ne man alzama nafsahu aadaba sunna nawara la qalbahu bi nuuril maarifa képp ku tegtaloo nangoo jëfee teggini sunna yàlla leeral sa xol ci leeru xam yàlla dëgg-dëgg te amul menn maqaamu mu gën a rëy ci jaam bi mu xam boroomam te ab jaam bu saxee ca la ko boromam digal day mujj léegi ames amee ak boromam léppam defe naa nitu adduna tey bu ñu nee woon par exemple préfet nee bu kenn génn fan la décret bi préfet di wax jóge tey misaal bu ñu nee couvre-feu nañ mbedd yi bu kenn génn ki wax couvre-feu nañ bu lu génn mais ndaw yam yabal ñooy génn loolu li ma ci bëgg a wax mooy yàlla nitu adduna mënta am sañ-sañu bu yabalee ay ndawam ñu jëfal ko lu mu bëgg te yàlla mënta am xej bu ko defal dara xam nga gëm yàlla ak jafe maanaam julli moom manees na ko dem ca jàkke manees na di maye sa dara aj màkk nga nekk labbayka nangam waaye imaan bil qadar loolu mu jafe te ab jaam lu mu tëlee day xam ne mënu ko te xoolal sëñ Fallu loo dégg ñu ne xar baax la ci moom mu jëfee ko xoolal jëf jënu mel bi ci jiitu bu dee faj aajo yi muy def moo xam nit di ko wax ci ak wéradi wala nit di ko wax ci nangam fan la tege defe naa am na ko wax ne ya bnu xadimi ladi yuddoxa bi fadilina maanaa la fadluka la unsa wala dakar loolu defe naa almashar yi ma ko waxoon doomi sëñ tubaa ji ñu wax sëñ fallu ngëneel yi ko yàlla jox amul mel na xel mu mën a takk ngëneeli sëñ fallu di ko xam waaye da ngaa jiitu sa kem yëpp sabaxta jiilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadail lam tusor biha fikaru am xel mënu koo takk jiitu nga sa kem yëpp yow sëñ fallu kee wax na nag ya bnul xadimi alladi maa xalla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaxatuhu amul kenn ku mas a jóge fi béréb am yitte ñëw ci sëñ Fallu wax ko te sëñ Fallu fajut sa yitte jooju xam nga way wolof yii dafa dafa dafa dafa doy ci nim ni mu portale sëñ Fallu du xotti satir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj ma jox la nga giijal fallu nga nii maanaam lii lii lii sëñ Tuubaa la ko doom fi ne way wii boo demee da fekk moom la sëñ Musaa wax sëñ sëñ du jox aji laaj dimbali dëkkaaleem du tooñ ku tooñ mu jéggal ngir boroomam li may ku ko bañ woo ku ko foñ safoo ku ko soof di neexal ku dul koy may boroomam maanaam xarfan bi xarfin moo tax kon am na ko ne ko waris sa sayq fii ilmin wa maxrifatin wa man sa lisi laa yuri fii ka warisuhu yow daal dëgg-dëgg yaa donn Sëñ Tuubaa ci xam yàlla donn ko ci wilaayatu ana kan muy umpale donn gi nga donn Sëñ Tuubaa yow Sëñ Fallu da ko donn ci lépp loo xam ne nekkoon na nekkoon na ci melokaanu loolu tax lépp lu mu wax suñu borom suñu borom def doyloo Serigne Touba ci lépp lu mu bëgg loola am misaal dégg naa ko sëñ Modou sa Dieng tey jii ci télévision wax mu ne sëñ Fallou sëñ Touba ko defaloon na ko defal naa la na am mu am du am du am ma ne waxuma sëñ Fallou waaye sëñ Modou ba mu ci yegg dana loolee tibb naa ci defal leen ci yéen ñii xam nga loolu ko gën a yéeme tibb naa ci kon lu fi nekk la ndax na am mu am ak loolu moom defe naa fële bëriwu fa njëriñ fii ah kenn yóbbaalewu ah kon dafay nekk ba léegi na am moo am mooy juboo gin juboo ak boroomam looloo taxoon nag bu nit ñëwee am yaakaar sëñ Fallu mën koo fajal da ngay dégg ñu ne sëñ Fallu waxloo na ko mënta wax ak doxloo na ko mënta dox ak may na diw may na diw may lu nekk sëñ Fallu def na ko ci àdduna bi loolu li muy bari bari li muy rëy rëy tey seetlul damay xool benn mbind tey ma gis ku ñëw ne sëñ Fallu man de damaa rey nit ab tubaab léegi nag dañ maa topp fanweeri junni am naa fukki junni ye waaye dama amul ñaar fukki junni yow mii laa ko yaakaare wax ko sëñ Fallu sëñ Fallu ñaar fukki junni jox ba mu dem mu ne waxul lu am waaye kenn du sëñ Tuubaa di ñëw fii muy tase fi man léegi xoolal moom fa mu ko teg te sëñ Tuubaa moom raja oon bi temps la ko yoraa mu xàqil maa yu sol la yaakaari sëñ bi moom ko di ci moom tas mu nangoo assumé loolu xajoo gi mu xajoo woon ñëpp loolu doy na xar baax maanaam fi ne mën a toloore sëñ Fallu loolu doy maanaam bu doon xool karaama ñaan yàlla mu doxloo mbët ak ñaan yàlla mu wax loo lu doy waar la waaye xajoo gi sëñ Fallu mënoo wax xajoo bag xajoo bang bang nit ñi seen i sikk moo gënoon a jafe dafa am kilifa gu ko sëñ sëñ Fallu ma sa wax ne ko dama bëgg nga gane si ma mu ne ko man damay ganuk sën dama bari taq-taq sëñ Fallu na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig lu woyof na tong ci kaw bu diis ñëwee na ko tonet xoolal xoolal sëñ bi melokaan damay ganuk sën mu ne ko may ëttub géej xam nga kooku du bodde du dagaase nit ñi du leen dàq dafa xajoo woon ñëpp boo ñëwee lu géej moom lu ci diis diig lu na tong ci kaw duus ñëwee na tonet yóbbu mu dem mu ne amul kenn ku mas a ñëw am yitte ñëw ci sëñ Fallu te sa yitte jooju dalut waaye antal xalifatu fi sirri wa fi alayn xarat bi kal ayni mi man am ma saaxatahu ku bëtam ma sa xong ku nekk boo ñëwee sëñ Fallu sa bët weex moo xam a jóge ak noo mën jóge lu tax ñëw boo ñëwee sa nekk lu weex mu ni koo xam ne lu ko mayoon loolu nag mooy sa sahita fi daarati shawqan li xayriqiha habdan lahu muxlisan dëban ibadatuhu dangaa ngaa dëddu adduna woon ko ginnaaw sëñ fallu loolu rek lu gën a doy waar sëñ Fallou ñaata la fayal nit ci ay bor defe naa six cent six cent sept six cent sept millions defe naa fayal na ko jullit ñi lu mat six cent sept millions sëñ fallu fay na ko ci ay bor ay quatre cent quatre cent et quelque ci ay ay sëñ Fallou maye na ko ay huit cent nangam sëñ Fallou yóbbu na ko mag te bi ñuy génn àdduna juróom-ñett fukki junni la fi bàyyi ak kër goo xam ne benn biraab almet mën na ko jeexal ba noppi tabax jumaa ju toll na ci pénc bi sëñ bi xoolal lool fayal jullit ñiy bor yóbboo makka mayay wata bàyyi fi quatre cent mille nga xam ne am na doomo am ñu doon seize mille am ñu doon gameel ak ak ak mbubb am ñu doon xool jumaa ji benn pakk bu jege jumaa ji bu doomam doon amul marché occas ngi nii gënoon a jege ñu koy dagg ni may am nañu kooku ma sa may danaan ci àll ba la ma sànni tey marché occas lu leen sëñ Fallu daan wax mas naa am ko sëñ Fallu daggal foofu marché occas mu ne ma ne sëñ Fallu dama sànni ci àll ba mu ne ko muñal rek bis dana ñëw nit yor million di ci bëgg benn mentor du ko am wala nit ñëw na la naa la tabaxal ba mu yegg nga dëkk ci kaw ma yor ci suuf defe naa loolu mooy baaje ba ko sëñ Fallu di wax defe naa marché occas ku fa yóbbu dal ay njabootam ñu ca gën a jege man nga ne ndaamaatu la ñu doon te ñoo ñu cëpp suñu Abdou Lahad Mbacké moo toog ba yàgg mu ne njabootu suñ Fallu gu ndaw gi gisuma leen wutal leen ay dëkkuwaay loolu dana jege ay 78 wala nangama nang nga xam ne wane loolu doy na sëkk xar baaxu sëñ Fallu mooy mën jiite yëf yi ba noppi ba noppi teg ci nag tabaxal sëñ tubaat jumaa ju toll ni mu ko tabaxal xar baax doy na ci nii jumaa ji mel fi ne ba nuy tukki waxtu ne dañ koy xolli defaraat sëñ Fallu ko waxoon fi ji du yegg lu tax biir jumaay Tuubaa ji noppee bi ñuy wër barab bu bi day wër naan Mbàkke fii lañ toll tollal lef fi buñ ko weesoo weesoo la ko loo jurut amul fekk jamono di fekk jumaa ji lépp duurut or wala jamaa rek des na ndax fu jamono toll jumaa ji dana fi toll ndax suñ fa la ko waxoon fii lañ toll tollal la fi buñ ko weesoo weesale la ndax loo jurut amut loo jurut amut defe naa ca melokaanu jikki jumaa ja rek doyoon na ci jumaay Tuubaa mel noonu bi suñu blaat ñëwee it yokkaat dafa woon nañ sëñ Saliou ñëw dafa nañ benn ji bàyyi ñëwee jàngale fa paawaas yi yoon ak def nangam defoon sëñ Cheikh Sidi Moukhtar ñëw na juróom-ñaari soro kenn xalaatutoon loolu dana am leneen ak leen Cheikh Mamadou ku ñëw rek fii lañ toll tollale fi bu ñu ko weesoo weesal la ci loola moo la ci moo la ci mu ne ko nag melokaan woowu nga am da ngaa dëddu adduna won ko ginnaaw yow Serigne Fadilou waaye nag da ngaa jiitu wa fuxta fi diini ahlil ans ajmaahum ñoom diini ñi nga jamonoon teel ñëpp yaa leen féete kaw yow sëriñ Fallu te mosuloo dañ mukk nag di jox diine raayatahu yow doo ko jox première parti doo ko jox deuxième parti mais fa mu yem maanaam fa nga xam ne plafonné na yow sëriñ Fallu moom ngay jox diine ak xam daal na ko yaay koo xam ne yow sëriñ Fallu li tax nga man li nga man wa man yakun hubbu mawlaahu tijaratuhu yarbax lahu la dur ala tijaratuhu bu nit ñi dee yaxantu naan maa ngi jaayee marché jaww beeg maa ngi wuti marchandise yow nga jël yàlla def ko muy sa marchandise doo perte li tax suñ fallu woom le ba fu mu lamb daj dafa jël yàlla bëgg yàlla def ko muy marchandise am kaana lawluhu suñ tubaa nee ne waxuma la yàlla waaye rabiha suu tijaarin qad tajarra bi hubbi shafiin ada al fajara yonent bi boo nee ko yaawaa rek nangul ko du doo perte waaye nag kii rek da ne wa man yakun hubbu mawlaahu tijaratuhu yarbax lahu llah dul ala tijaratuhu moo tax mënta sooy lu ma sa bëgg suñu borom fekk ci mu ne ko nag yow de sëñ fallu laa xar wa in foxta ashaaqil bi laa defa xat walayta min dalika cheikhu makaanatahu yow boo rawee sëriñ jamono yi nga bokkal jamono yi waaye loolu daal yéemewul lu tax sa bàyyi rawoon gaa ñi te fa mu nekkoon yaa fa ne gannaaw siis bi benn la sa bàyyi ji toogoon bu wàccee yaa ca toog kon ni sa baay rawe woon ne nga rawe yaa fadilal fadli kam ardayta da watarin min kum wa kam xaada an suwa xaajatuhu bari waa na ko jàq tiit di jooy ko faj yitteem yow sëñ Fall bari na ko jaaxle ñëw fi yow ko kon yaa doonoon fajkatu yitte yi yaa doonoon ki daan dimbalee yow Cheikh Mouhamadul Fadal kon sëñ Falloo ngi noonu doon koo xam ne it defe naa am na ci keneen koo xam ne moo Obayd Rabi Sidi Diaba Diaby dafa am lu waxoon ba muy wax ba ci biir dafa wax ne yaa yaa man loo ilmu wa maarifa wa shahratun wa fi lxislaani madkur laa zilta murshida si jahlin wa muctiya di xaajin yu lay waxu bi matlubi masruur yow sëñ fan xam-xam moom kenn du la ci natt xam yàlla kenn du ci mel ni yow ñaari melokaan yi xam-xam ak xam yàlla ku la ci gën a siiw baa ko ci mel ni yow amut mosuloo daj mukk laa zilta murshida di jahlin ku ma sa réer ba xamoo foo jëm boo ñëwee ci sëñ Fallu mufti mu jubbante la ñaata nit la sëñ Fallu jubbanti teg leen ci aw yoon waxaat leen diine xam leen fañ jaar wala waxtu ya bii haajin waaye saa yoo ngooree sa yitte ba ñëw fi moom mu fajal ko am na kilifa gu baax sañ Ahmadu Bamba ko ci waaye nee bu ko gën a yéem nag am na bis boo xam ne bi mu ñëwee moom sëñ Moodu xabbaanum sëñ Fallu dafa dajee la doomam waaye moo bokk benn piis bu mu leen joxaloo ñoom ñaar ba nopp boo leen noonu yewee nga xam ne kon moom Euh, du du du du parparloo du am beneen melokaanu mel ne xar baax jooju nag sëñ Moussa Ka ku rëy wax la dane ballu bann lu juumun biddiw sëfut weer sëriñ Fadilu mooy weer wi leen di jox reer alil fadl lu bis nun fala taxiisu xamaaran bi jawaadin fasaara isu na ngeen seere ne fii jëngu leen siin ba sëriñ Fadilu lay def sëriñ Tuubaa xam nga daa jëkk ne ballu ball gépp ay biddiw leen sëñ Fallou weer wi leen di jox leer daan na waaye bu leen di wër koo leen koy gam-gam leen suñ fallu mu morom noo leen di fekk ay mbaam sëf ngeen koy dana lekk naari góor suñ fallu mooy suñ Tuubaa ca biir wax jële day wax ba ca biir mu ne ko xawaari yi Cheikh Fadilu moo jaam amul cëm su ko lamboo ci yoonu lislaam di suñ fallu di ramoo nit amul ko xam ci suñ fallu dégg ngay dégg ñu dencum néew ba noppi daan na suñ fallu na fi yebal ci suñ fallu da ngay dégg barke suñ fallu nang suñ fallu képp a mas a wax ne waa kaw xam nañ fallu waa suuf xam nañ fallu malaaka yi ci bàmmeel xam nañ sagari fallu ko ngi may jël boobu engagement kon loolu suñ mu Ka wax ci ci ci Cheikh Madou Fadal loolu melokaan la woo xam ne day jàngale dayoo bi ko yàlla jox ak melokaan wu la yow mu am loolu moo tax ñi ko gën a jege loolu la ñuy bind ci moom moo tax boo bëggee Sëñ Fallu fi ne cour de grand nga bokk xool Sëñ Fallu daan woo Sëñ Tuubaa yu bari Sëñ Tuubaa dane xaw alladi yuhibbuni man a wala yufaariqul xiyaara nuxba ku ma bëgg loo bëgg ngay am du doo tàggoo gaa yu baax Sëñ Fallu it man laa sa képp koo xam ne wéeru la ci moom te bëgg ko lu mu lay jural man waddahu la sëñ Moodu man waddahu wadda min al axyaari wa man jafa wadda bil axyaari kon axyaar ak sul axyaar képp ku ko bëgg bokk ca gaaña maanaam bëgg sëñ Fallu ndake mooy baax waaye saa yoo ko noonu woon ko ginnaaw nag bokk ca safaan boobu waliyaasu billah kon daal soxna Mambusu loolu mën nañ ko cooy déggee ci ci li nga wax ndax mooy ay ay ay ay xar baaxam yoo xam ne euh, loolu wax naa la ko léegi waxtaanee nañ ko sëñ Fallu ci nu ne boo gisee tey ñu jël facette bi wane ne contexte jamono fi mu toll. Mhm. amul solution bu gën a wér sëñ Fallu. mooy seetal côté bu la neex amul amul amul asma bi asma lañ leen dañoo xam nga dañ ne asma gidaiya wala iqtisadiya wala alamiya mais asma xuliqiya bi moo gën a xon crise alimentaire beeg économique crise mondiale mhm. di koy yàqu ya ko waral te sëñ di royukaay seen royukaay boo xam ne mën na ko ënd ci ab jullit wa baa sax ci ab murit waaw